mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf cànn bi ak réew mi FM daleen ak jàmm ci seen émission démb ak tey ni ñu ko baaxoo dimanche bu jot ci waxtu bi euh, tey nag ni ngeen ko déggee dañuy waxtaanee nit citoyen euh, sénégalais ndax euh, fi réew mi toll ci jikko yu yàqu euh, ci xëy na mbir yu bees yu ñu xameewul woon sénégalais euh, jaruta nettali kenn ñëpp ko gisandoo mais jaadu na itam bu réew tollee fii ñu daal di xool démb ana li amoon lu tax tey gisatuñu ko lan moo xew ci diggante te bi ba mel ni daal nit ñi dañ leen a weccoo wala yeneen nit la ñu nekk loolu nag euh, dañuy am mbégte dalal ci Abdou Khadre Gaye muy ko xelam màcc ci euh, jàngat yu ni mel ci yar ya maam yi daan yar ndax du mag waaye yàgg na ak mag ñi tey itam ba tey mag ñi lay fréquenté euh, moo jiite mm-hmm. EMAD mais tey surtout ñu dalal ko ngir coordonnateur mouvement citoyen taxaw citoyen debout gi mu doon ndax ñoom seen jubluwaay loolu la fexe ba nit ñi nanu meloon démb buñ ko mënta melaat itam jikkooy rafet ya woon démb ñu fexe delloosi ko ba xëy na lu ëpp ci askan wi jëlaat ci réew mi mën a normal société bi mën a nekk société bu nit mën a dund ak dal Abdou Khadre Gaye ñu ngi lay mm-hmm. nuyu di dalal jàmm ci démb ak tey doo ci gan yow moom macha allah ci nga ci gan maa ngi lay nuyu Adja Fatou Thiam eh, mais nag damay rectifier ci mag ñi laa bokk mm-hmm. waaw yaa ngi bëgg a bokk ci mag ñi <laughs> dama koy réclamer dama koy réclamer de nag des na <laughs> dama koy réclamer sax <laughs> eh. Eh, parce que aussi euh, statut la mm-hmm. te statut boobu su fekkente ne si société bu normal la ñu nekk dafa am lu ñu lay nangul. Mm, euh, dañ lay jox kàddu ci penc bi. Mm-hmm. dañ lay déglu ci penc bi dañ lay boole ci yarkat yi. Mm-hmm. ci statut yarkat boobu nag da lay jox droit. képp ku nekk ci statut inférieur bi entre guillemets. Mm-hmm. mu ngi nekk ndaw dangay am sañ-sañ ci ñoom. moo waraloon démb su ñu nekkee ci koñ. wala ñu nekk ci dëkk walla ñu nekk ci réew képp ku fay mag am nga sañ-sañ ci képp ku fay xale hmm. soo ko gisee muy def safaan wala muy wax safaan wala muy xalaat sax safaan ba xalaat bi jib ba nga dégg ko nga am droit intervenir tegaat ko ci yoon wi yoon woowu nag tey moom la diine islaam oowee siraatal mustaqim hmm. sama xarit Ablaye Faye wax ma ne Abdou Xaadar yoon boobu dañ ko bale càmbar ko lay ko ñàkk ko tànk yaa ngi ci tegu rek dég bu lay jam newu fa xeer bu lay paqastal newu fa su la dég jamee wala xeer paqastal la wala lu mënti doon lor la dafa fekk nga génn ñag bi kon boobu yoon boobu daal dañ ko rëddoon mm. defar ko aar ko ak ay jikko mm. ay jikko yu rafet fulla fayda jom ngor fit muñ ak ya des yooyu yëpp nag la ñu doon woddee doomu aadama ba mat li mu doon hmm. malheureusement ni nga ko waxee ci introduction bi sëñ Pape Malick si jàngalewoo ko moo noonu mu ne jikko yu rafet yi ñibbi nañu ndax yàlla def leen wàcce woon ci kaw suuf ngir ñu wodd doomu aadama hmm. tey nag doomu aadama ne dung moo ko gënal vivre tout nu futteeku ci lépp jigéen yi nag ay yére lañu te soxlawuñu leen ñoom ñibbi nañu jërëjëf. Hmm. kon tey mën nañoo jàpp ne nit ñi dañoo futteeku euh, futteeku googu ñàkk kersa gi yenn saay di ko wane ñàkk kersa ci mag ñi ñàkk kersa ci ñi la jur ñàkk kersa ci kilifa diine yi nga xam ne tey euh, daanaka bu réew mi yegsee fii ci dal ci jàmm ci bennoo am nañ ci euh, rôle bu am solo léegi pour commencer diagnostic bi Abdou Khadre mm-hmm. Mm-hmm. lan moo indi ñu nekk ci situation yi lan moo waral jikko yu rafet yee jikko baax yi ñibbi waaw yoon bu gudd la nag yoon bu gudd la ba nga xamante ne soo ci xuusee bu baax a baax sax dangay ngay ci fu soree sori dans l'histoire hmm. mais foofu jaruñu àgg fa ndax dina gudd du xaj ci émission bi hmm. am na ay mag yu jug defaraat ko foofu sori foofu ci histoire mooy jamonoy trait négrière esclavage hmm. ak colonisation wante jamono jooju bu mu mettee ba ñuy rëbb doomu réew mi comme nu ñuy rëbbee un animal sauvage nit ñi daw tasaaroo wut fu ñu làqatu fit yi dem ba talatuñu seen bopp loolu am na lu mu yàq ci jikko yi wante yàlla wàcc ay mag ñu mel ni maam Alaaji Malik ñu mel ni maam Borom Touba ñu mel ni maam ko ci Barma ak ñeneen ñu ñagaat doomu aadama xamal ko mooy kan mais bi ñu ñëwee ci indépendance mu am nag lu ñu antanul mu am benn système bu bees bu wëdd wëdd àdduna àddina ñu koy waxee néocolonialisme hmm. nga xamante ne def fi jëmbët xiif ak mar ak rafle ak ñàkk mais mu ànd ak bëgg alal hmm. la signification du mot tekki hmm. ñu soppi ko ci suñu vocabulaire tekki laata loolu lépp di am moo doon nga xam sa bopp nga jubóox sa bopp nga woddoo jikkoy rafet yi hmm. ñu ne kii kat tekki na ñu ne xale su yaroo na ca tàngal hmm. maanaam soo defaree sa bopp ba tekki ci jikko xamal ne di nga réussir di nga àgg fa nga jëm hmm, kon base réussite loolu la waaw mais bi ñu tegee système bu bees bii nga xamante ne ci kaw koom ak alal la tegu suñuy natt réew yi ci koom ak alal lañ leen di nattee suñuy natt nit itam ci koom ak alal lañ koy nattee. ak nu ko mën a hmm? amee. ak nu ko mën a amee ñu ne tekki moom mooy réussir sa vie moom mooy am alal. ce qui fait instant boobu nag dootuñu bañ sàcc dootuñu jomb sàcc. Hmm. dañu naan ndegam sàcc nga fexeel ba rëcc. fiax hmm. laa yaa ngi rëcc rek garaawul li ñu bañ mooy nga sàcc ñu jàpp la. désaxation boobu nga xamante ne moom moo soppi mbir yi moom moo soppi nit ñi. waaw ah, et société bi en toute complicité boo sàccee ba rëcc da lay accepté. ah mais bien sûr ndax dégg nañ fi détournement yu day waar bu nit ki ñëwaatee tàllal ay loxoom ñu jox ko. ah mais bien sûr ñëppay xam ne sax day sàcce. société bi yëpp dañuy xam ne diw si lii la ne mais ñu nangul ko ko mm-hmm. donc loolu moo yàq mbir mi. foofu nag la nit ñi commencé di sàggane jikko ñu ne noo mel baax na amal alal rek hmm. alal bi dina raxas lépp alal dina raxas lépp lépp luy ñaawaay ci alal dina tax société bi nangul la bépp comportement bu mënti am. loo bon bon boo ñaanee jabar ñu may la. Ah, ah. bu ñu jël exemple pour bañ a tooñ. Hmm. mais bés bu ne gis ko. amal alal noomeel baax na amal ay oto amal ay taax noomeel baax na loo bëgg ñu jox la ko soo demee sax ci eh, bërëb yi nga xamante ne spiritualité lañ fay oote ñoom borom alal yi ñooy jiitu demee ci bërëb yi nga xamante ne àddina lañ fay oote ñoom borom alal yi ñooy jiitu mm-hmm. su ko defee nag loolu dafay confirmer thèse bi mooy ne amal alal ñëpp accepté la ci xalif général bi ba ci directeur de société bi ba ci président de la république foofu nag le mbir yi yanqee yanq bu sori hmm. ñu seetaan suñu bopp moo tax tey xale yi comportement yi nga xamante ne am nañ ko ak fit bii nga xamante ne am nañ ko dañu ne attends on se révolte contre ces dispositions de la société en sachant une chose hmm. mooy ñun nit suñu bëttee suñu teen ba am alal tooñ bu ñu mënti tooñ ñu baal ñu ko seetal ñan la ñuy baal ci tooñkat yi tooñ boo mënti tooñ ba jàmm mm-hmm. lu mu rëy rëy rëy lu mu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw alal boobu mm-hmm. cette réussite social la mën na ko effacer mm-hmm. li bon kay alaaji <laughs> Mor Mbay waxoon na ko mooy ñàkk xaalis duñ la baal dara say nuyoo su bëree sax ñu ne la eh, sëñ bi da ngay nuyoo dafa bëri. <laughs> da ngaa soof. waaw mu ne nag soo amee alal jarul sax ngay dab nit ñi di leen jox loxo wala nga naan bonjour bonsoir mu ne wéyal rek te bàyyi sa loxo si ginnaaw nit ñay daw di la nuyu. <laughs> ndax am nga koom. ax noo mënti mel. Mm. léegi société bi nga xamante ne nag si eh, nit dafa ne nit mooy ki am alal ki jar a naw mooy ki am alal ki jar a mooy ki am alal. ki jar ubbil sa bunt mooy ki am alal. Mm. ki amul alal ak lu mu mënti am leneen lu dul alal amul dara. yàqu-yàqu yooyu ba ci biir kër yi yenn saa yi nga gis ki nekk mag ñu koy ñàkkal fayda. di ko teg mm-hmm. yoo xam ne ñàkk alalam moo ko waral jël ay rakkam teg ci kawam loolu jàngoro la ci biir kër yi. waaw dafa sàggan dafa sàggan ba amul alal. di mm. sa morom yi di liggéey foo nekkoon. sàccaat tey senegal gii. ku amul alal sarul sañu yëkkati loxoom ne dama bëgg a nekk député wala maire wala président. Hmm. wala damay sos parti parce que nit ñi dañ naan eh dama toog doo am dara. pour nga am lu mu mënti doon foog nga am alal waa ji nee pour ñu ubbil la bunti kër xalif généraux yi nekk Sénégal sax foog nga am alal. dañ koy wax de. Hmm. soo amee alal en vingt quatre heures tu peux faire le tour de toutes les familles religieuses. Hmm. waa dafa ñëw ci kër ga. ndeysaan seet ci sëriñ bi bon sëriñ bi nag dafa am ñi nga xamante ne daf leen di dugal ci biir néeg bi ñaanal leen hmm. am ñi nga xamante ne ci ñaanu ëtt bi rek ñaan général bi la ñuy am <laughs> moom que puisque gan la woon kenn xàmmewul xar kanamam mu yem ci ëtt bi rek humblement hmm. boo jël ci ñaan général bi bi muy dem mu bàyyi fa benn enveloppe dem sëñ bi ñëw dugg ci biir di xool enveloppe bi gis enveloppe boobu am des centaines de mille mu ne waaw sëñ bi eh, kii kan la waay ñu ne kii kat benn waay bu toogoon fële la mu ne anamu ñu ne ko dem na mu ne daw leen gaaw jëli ko ba ñaanal ko ñaanu biir néeg <laughs> moom la mérité waaw mu dëpp ñëw sëñ bi ne ko non sëñ bi yow bokkoo ci ñaanu mbooloo mi ndax lii nga fi indi ci xaalis foog ñu wàccal la kaamil hmm. yematu ko sax si biir néeg ko ko wàccal kaamil oo la ñu wàcc kaamil ngir waaji Hmm. donc xooluñu jikkoom. xooluñu melokaanam. xooluñu diine bi surtout parce que ci nitu diine la ñëw. loolu moo a nekk léegi nag loolu moo tax nag fàccaam xale yi ne barsa wala barsax hmm. ndax pour nga am cër ci dëkk bi fokk nga am koob soo amul koob tu es un zéro social ñoom bëgguñu nekk zéro social hmm. mais su ma ko naree nekk naa dee kon naa dem Barça am koom dellu ci Sénégal wala ma dee moom la Sanokho waxoon ca bandam baax ñoom yu ko Sankharé yu mm. ko ne dañuy dem kat bande Caradas Sanokho c'est un humoriste di reetaanloo nit ñi mu ne dañuy dem toj banque bi seddoo xaalis bi ma nekk quelqu'un ma ñibbi guddi baxa ma organiser Colodera ma ñaawal tout le monde c'était projet sa nous faisait rire les, les mm. Mais c'est une caricature qui donne révéler l'âme de la société sénégalaise à l'époque. C'était dans les années 80. Mm-hmm. Donc foofu la ñu toll. Mm. en ce moment nit day doon leneen si jamonoy maam soo kan mooy nit nit mooy kii nii. niit. Hmm. gisoo ñaari mooy nu ñu nu ñu nu ñu niroo. waaw nit ak niit ñu ne niit. Hmm. nit mooy mooy éclairé. donc l'homme est une torche. de la lumière pour la société. ñu ne kan mooy nit ñu ne ki dem ba di produire lumière boobu ba di leeral askan wi ñu ne kooku mooy nit. mais définition boobu changé na. Hmm. parce que soxlatuñu nga leeral askan bi d'accord dañu soxla nga wis koom askan wi comme ni ñuy wisee ay pepp ay ginaar. kan mooy nit ki tekki mooy nit ki tekki mooy kan mooy ki am alal plus sa alal di bëri plus sa position sociale di yokku quel que soit l'homme que tu es. Hmm. nekkal rendikati nit nekkal reykat nit nekkal le dernier des hommes du point de vue moral si tu de l'argent on te pardonne tout et on te met la première position fàccaam loolu yàq na yàq na société déjà parce que dérégler na les fondamentaux mm. et maintenant au Sénégal euh, maa ngi koy wax waa ji keroog soo duggoon ci arène politique bi daf fay fekk Amath Dansokho mu ne la man liggéeyuma sama jabar mooy liggéey waa ji ne ko mais attends euh, mu ne non sama jabar am na kër booy fay kër gi mooy def lii mooy def lii mu ne ko attends fooy jëlee argent de poche mu ne mais su fekkee ko moom may may argent de poche. Hmm. et kenn yàbu ko woon. Hmm. parce que li ñu doon xool ci moom du woon du woon poosam alal ci waaw. mais dañu doon xool ses valeurs. li hmm. nga xamante ne moom la porté. xam-xam bi engagement communautaire bi engagement pour la société sénégalaise. moo tax nga doon gis des acteurs politiques comme Abdoulaye Bathily amuloon xaalis. Hmm. Abdoulaye Wade ses relations avec les militants c'était pas des relations d'argent. Abdoulaye Wade may na xaalis wala dem na ñu pare ne ko benn làmb wala mosoo ko mosoo ko mosoo hmm. parce que relation ak nit ñi ak li ko nit ñi fonkee du woon mais son envergure intellectuelle. Hmm. Cheikh Anta Diop amuloon xaalis. tous ces grands hommes. pourtant ñi ngay wax nii yàgguñu de président Wade mi ngi fi ba tey yàlla na fi gën a yàgg. professeur Cheikh Anta Diop barki démb la. yàggul euh, kon yàggul Fatia yàggul. diggante bi kon lan moo indi déclic bi lu tax léegi yëf yi wëlbatiku carrément lan mooy déclic bi fan la commencé. Euh, euh, mais la société mercantile que nous sommes devenus. Hmm. teg benn valeur moo am et c'est ah. hmm. parce que Cheikh Anta ba muy def son combat pour. révolutionner les mentalités en Afrique mais il était seul dans son laboratoire wax naa ko ci benn texte mi bind ma ne Cheikh Anta li mu produire dans son laboratoire c'est aussi important qu'une révolution armée parce que ça a révolutionné les mentalités en Afrique te ba muy def liggéey boobu c'était pas pour de l'argent parce que amu ci xaalis hmm. reconnaissance kese la ci am tey jii ku sa doom doxoon doxalin boobu nga mere ko. Mhm. tu dis attends yow sa tëju bu rëy bii ana mu munoo fay sa lii amoo mhm. étage amoo xaalis amoo compte bancaire amoo dara li ngay tëju lu mu jur. parce que le résultat qu'on attend aujourd'hui dans nos sociétés mhm. même de nos enfants c'est d'abord l'argent le matériel. bu yàgg nag da doon wax xale bi amal jikko soo amee jikko yi lépp ñëw. loo mënti am te amoo jikko amoo dara. c'était ça qu'on apprenait bërti bërtil kërti kërtil ba am ay milliards soo amul jikkoy rafet c'est comme si tu n'as rien mais aujourd'hui c'est le contraire fàccaam pour que nag ñu saafara mbir mi il faut ko ñu delloo nit ñi fa ñu nekkoon ñu xam ne mag ñi daan nañ ko wax ñu ne dung bu ànd ak ëske yi boroom xam-xam la ko yàlla may hmm. ak boroom wilaaya nga ñëw ci mbooloo mi sol ay sagara <clears throat> Hmm? Hmm. gën fa ñaaw yére dox ak tànku neen sax bi ngay ñëw nga agsi si mbooloo mi ñëpp jug taxaw mooy dung bu ànd ak yi ñu ne yàlla borom xam-xam la ko may ak borom daraja soo liiree l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou hmm. Kane moom la chef des dialogués di wax euh, le maître Thierno la grande royale ne ko sa néeg moo gën a fënëx ci néegu dëkk bi sa yére yi dafa xotteeku yaa gën ñaaw ay yére ci dëkk bi mhm. da sew da nga oos wante xamal ne nul n'a dans ce pays un empire égal au tien hmm. tey jii soo fatuwoon dugg sa biir nag ne ma dëkk bi ñëpp mu rànkee ndax yaay dëkk bi mais loolu neexul waaw ah, loolu mooy tekki maître bi xool boppam ndax ne pourtant elle a raison hmm. ñu nangul ko ko soo demoon Anden le Mahatma Gandhi foofu la tollu woon ba ñu amee réunion ba gaare benn oto bu rafet bunti hôtel ba di ko jël si buntu mu génn chauffeur bi su jootal ko mu ne ko lan la mu ne ko non oto bii pour jël si la mu a dëkk bi yëpp di dox ma dugg oto <laughs> ba pare ma ne je veux sauver ce pays comme tous les indiens jiitu ma mu ne leen maa ngi ñëw mu dox dem ci réunion ba keroog la gaa ñi xam ne waa ji ñoom xaar mu ngi nii hmm. mais loolu ku ko defoon Sénégal dañ lay dàq dëkk bi dañ lay dàq réunion bi soo ñëwee fekk ñu tëj bunt bi xam nga lu ñu lay wax. Hmm. Hmm? Hmm. kuy doxax tànku neen du bokk ci réunion bi <laughs> tànku neen bokk ci réunion bi donc Fatiam dëkk jikko yàqu na nit ñi tumuranke nañu il sont devenus pauvres même dans la richesse et cette pauvreté dans la richesse moo tax ñu nekk de mandian riches boroom xam-xam ba nag ne ne ñaari yolwaankat ñoo am kii kii yolwaan ndax amul dara ki am lépp bu pare di yolwaan mu ne soo dajax ñaar ñooñu joxal ñaareel bi ki lépp bu pare di yolwaan mu ne ndax xiif gënu koo metti yor ko ba pare di yolwaan loolu moo am nag ci jëkk bi hmm. ñi am alal dañu continuer ndax ñi amul dara di xëccoo ñoom li des ci réew mi hmm. nañ nañ nañ faj nit ñi nañ faj xol yi nañ faj jikko yi suñu bëggee tungóob Sénégal hmm. suñ ko deful tumuranke gi moom pétrole ak gaz ak leneen mënu ci dara dañuy continuer ci tumuranke gi hmm. est-ce que tamit ni ñuy yare amu ci Abdou Khadre part de responsabilité éducation mag ñi nañ daan yaree démb ak ni hmm. ñuy yaree tey njaboot gi euh, est-ce que benn la est-ce que problème bi tam nekkul foofu maanaam di la di la yar am yu ñuy def ci yow léegi dafa mel ni yooyu yëpp dañ ko négligé éducation wala am sa doom léegi yar ko weesuwul xëy di ko jox mu lekk ak di ko naan euh, wax ji mhm. nga war a wax ak moom doo ko def jikko yu mhm. rafet yi nga war a euh, jëmbat ci moom xëy na taluloo ko da ngay gis sa doom di def naka sudul noonu nga nga nga mel ni gisuloo ko dégager say responsabilité éducation bi taxawaayu wayjur yi ci li xew tey pour que peut ñu mun a jéem a sauver yeneen génération yi ñëw parce que yi fi nekk moom seen wàll wéy na balaa ngay yar da nga yaru ba pare fàccaam. Ah, waaw te lu mu amul du ko joxe. waaw société bi su la imposé boppam ba gëm loo leen lépp ngi ci koom donc koom boobu moom moo nekk sa xol moom ngay def ci sa doom ba xarit yi muy àndal soo leen di tànn. da nga leen di tànn en fonction de leur statut social. dëgg la waaw. loolu dañ koy dégg kii du sa nawle. du sa nawle. bu yàgg du sa nawle jikko moo doon tax. dëgg la gis nañ ko muy defee. nit ñi lu leen neexul. Mm-hmm. comme par exemple sa doom ànd ak kooku muy saaga. wala ñu gis ko mu vulgaire ci langage am. Mm-hmm. wala ñu gis ko wala ñu gis ko ñu ne kii du sa nawle mais léegi xam nga lu ñuy xool. Mm. yére yi mu sol déjà. waaw ak ñenn ñoo ko naka la solo. Mm. portable mu yore. kuy papam ñu ne papam mooy député wala mooy maire bi wala mooy adjoint au ne eh, ànd moom jàpp de. Ah. Ah, gisoo léegi sax ñi am ñi ñooy sëy ci seen biir parce que ñoom ñooy fréquenté wu. Ah. loolu. foofu la réew mi toll. Hmm. donc su réew mi toll foofu naka na yar di baaxee. Ah. même au niveau dans les espaces religieux bu yàgg. Hmm. soo demoon ci gàmm yi sëñ Samba nga fa daan fekk. sëñ Samba nga fa daan fekk. Hmm. wala nga fekk fa euh, borom borom borom baatin yu mag ya. ñu lay wax yàlla di la wax jàngale sëñ Touba. ah wante léegi c'est tout à fait le contraire tu as l'impression que le folklore bi nga xamante ne moo yàq la culture ce folklore laa aussi moom moo yàq laa religion mm. diine mi ñu waroon sauver non dañu war a sauver diine dañu war a sauver aada dañu war a sauver culture tout ce qui est patrimoine mm. Fathia même soo demee dans les pays les plus développés am na des fondamentaux qu'on laisse là-bas léeg-léeg ñoom ñu ñu ñu ne la taax bii bu kenn soppi nga ne pourtant maa moom ñu ne yaa moom wante amoo droit soppi ko parce que askan bee ko moom nga ne leen lu tax ñu ne la taax bi dafa am lu muy symboliser dafa am lu muy bàyyi ci xolu doomu aadama yi ko kon daal c'est un patrimoine nga dem fekk un livre ñu ne téere bii nañ ko aar nañ ko vulgariser nañ ko defar mu gën a taaru waaw nga fekk fa ay bibliothèque nga fekk fa ay musée nga fekk fa ay enregistrement sonore nga fekk fa ay enregistrement vidéo tey dem naa ci benn télé di laajte benn feuilleton bu amoon au temps de dans les années soixante dix Makoura mm. Jegey chauffeur de taxi mm. ñu ne ma eh, kooku enregistrement yi <laughs> nga laaj leen benn discours bu benn émission bu fa Cheikh Anta Diop bu noonu def monsieur archive yàqu na hmm. Hmm? ak nga dem au niveau au niveau de, de dans les familles religieuses tu trouves la même situation et maintenant soo demee ci espace yooyu ci gàmmu yi niveau bi wàcc na. Mhm. parce que sëñ Saad Mbay nga doon dégg muy wax. un soufi kenn du werante suy waaraate nga xam ne kii li muy wax nii c'est pas du vent lu mu gëm lay wax. boo loo yóbbaale. wax lu muy dund. Mhm. nga xam ne daf koy c'est sa pratique de tous les jours. mu ciy waxtaan ak nit kuy wax mbir parce que mbir bi def ci am intérêt financier bokkul soo demee à Sorano les les choses ont chuté le Sorano d'aujourd'hui et le Sorano d'il y a quelque temps ce n'est plus pareil hmm. tout espace yëpp nga xamante ne jikko lañ fa ak aada ak diine yëpp yàqu na yëpp màbb na hmm. c'est ça la réalité du Sénégal et loolu daf lay woon déjà benn affaire ngay gis euh, soo doon doxantu biir Dakar à l'époque y avait une trentaine de salles de cinéma salle de cinéma yëpp ay kii la ay salle de cinéma yëpp ay marché la yëpp ay centre commercial lañ ko def hmm. Hmm? ñaata centre culturel ñoo nekkoon Dakar te yooyu dañ doon contribuer ci yar ndaw ñi mais defar société bi moom la Ablaye Wade doon doon jéem a euh, relancer à un autre niveau parce que c'est un bon visionnaire. bi muy sampee la case des tout petits. pour que le rôle de la grand-mère ñu ko mais nag du noonu. Mm. dañ koy préparer yow mi koy fexe da ngay fexe ba nit ñu gëm ko. Mm-hmm. un projet da koy partager ak nit ñi bu ñu gëm ko. je ne sais pas si tu vois un peu mais dëkk dafay am am. dafay am âme c'est ah. tout ce qui est ou de, tout ce qui immatériel mm-hmm. la vision que les gens ont de Serigne Touba l'image que les gens se font dans leur cœur de Mame El Hadji mm-hmm. l'image que les gens se font dans leur cœur de Lat Dior Ngoné Latyr l'image que les gens se font dans leur cœur de Cheikh Anta Diop c'est des valeurs que nous devons sauvegarder mm-hmm. mais tey jii image yooyu yëpp dafay effacé wu mooy bind naa fi un papier le portrait moral de Serigne Touba. Mhm. donc j'ai dit le portrait moral de Serigne Touba parce que je vois que gars yi gisatuñu ce portrait moral là ils ne voient que la dimension matérielle et charnelle de l'homme Serigne Touba. Mhm. alors que Serigne Touba du jëm du nit jikko jikko la mais si on ne voit que jëmb ji que nit ki ak muuraay bi et cetera fàtte jikko bi ak la mënoon jëmbat ci xolu nit ñi mais l'image l'image est partie hmm. et quand l'image meurt dans le cœur des gens dootul am impact ils vont chanter jërëjëf sëñ Touba ba pare bon <laughs> di def lu leen neex hmm. tey su ñu demee ci dëkk bi ba nit sañ taxaw saaga sengoor saaga Ablaye Wade saaga et cetera mën nga critiquer Senghor eh? mm. ci point de vue de la pensée mais xalaatam bii d' accord ma ci lii dugg yi mu teg Mamadou Dia d' accord ma ci et cetera mais c' est un grand monsieur mm. chef tu ne peux le réduire en néant mm-hmm. nit ñu màgg ñu nekk ci réew mi ñëpp dañuy jël li màgg ci ñoom nag taaraan ko teg mais léegi on déchire les valeurs on déchire les croyances on déchire les convictions et finalement soo sooy dox ci dëkk bi tu rencontres des zombies des zombies c'est des hommes sans aucune profondeur ils n'ont que leur carcasse physique nii apparence physique bi moo fi ne dara newu fi hmm. et un cœur rempli de désir mais un désir d'argent hmm. léegi désir d'argent boobu nag su jëmbatoo ci xol yi fàccaam lañ mooy am bëggee mooy am hmm. ak compétition pour jot xaalis bi ak iñaanante maa ngi ko doon wut nga koy wut nga am comme nga def ma def la noonu Mmh. C'est ça actuellement euh, le Sénégal. Et même les compétitions yi nga xamante ni c'est des compétitions politiques. foofu c'est des compétitions pour des pour des pour des postures ah, yegg ci nguur gi. pour yegg ci nguur gi mën a nguuru mën a jël ci xaalis bi. Mm. mën a def comme yu ko Sankara bi ma la wax sànq bi saa na ko doon wax. Mm-hmm. dem di di maxa ñaawal tout le monde. Mm-hmm. imagine nga loolu. mu ne dafa créer benn benn benn benn bande d'agresseurs. dañuy def banque bi toj xaalis toj banque bi. jël xaalis bi mu dem Gidimaxa xam nga seen ne Gidimaxa lu muy def. mu ne pour ñaawal tout le monde. non Sanokho c'est un génie. demul pour dimbali waa Gidimaxa demul pour de bëttal leen ay teem. demul pour defar école yi. demul pour defar néeg yi demul pour defar tali mais day dem pour ñaawal. ñaawal tey jii nit ñi dañuy def compétition mais ku gagné c'est pour ñaawal sa morom. ñiy compétir pour ku gagné ñaawal sa morom nag instant bu ñuy compétir ku jekki sa morom rendi ko. parce que sa noon la dootul sa nawle. Hmm. Hmm? waaw. noon la. Hmm. moo tax même soo gañee da nga koy ñaawal. et pour ñaawal ko di ko jël humilier ko teg ko kaso et cetera patati patata humiliation moo tax soo xoolee dans l' espace politique. nit ñi baax Sénégal yëpp toujours si kersa la ñuy dëkk. parce que ku nekk yaa ngi jéem a humilier sa morom lan lu ñaaw laa xam si Fathia ma nettali ko. lan lu ñaaw laa xam ci Abdou Khader ma nettali ko. lan laay wax pour détériorer image yu nit ki et maintenant quand dans un espace humain les gens sama morom foofu devient invivable te loolu dafay répercuté wu après ci société bi parce que euh, pour jot comme ni nga ko waxee nguur gi mën a nguuru am na ñoo xam ne lu ne la leen di jaral mais des fois daf koy jaral aussi euh, seen ay nit mais mm-hmm. euh, est-ce que tey kon euh, Abdou Khadre ni diñ koy waxee le poisson pourri par la tête mais mm acteur politique yooyu lan moo war a doon seen taxawaay bu buñ jublu woon tey ci ci soppi euh, jikko yi defaraat société bi wala sauver li ci des euh, dañuy atteindre benn niveau de grandeur impensable mooy nitu dëgg gi nga nitu dëgg day xool liy dëgg rek mu def ko mu neex Fathia mu naqari Fathia mais aujourd'hui nous sommes dans la démocratie. Mmh. c'est la loi de la majorité. mais la mais la majorité n'a pas toujours raison. Mm. la majorité peut avoir tort hein. Fathia nga nekk si lu lu dul dëkk mbooloo bi yëpp topp ci ànd ànd ceex yow nga dem élection gagné. léegi nag on a l'impression au Sénégal que cette démocratie daf ñu nax ba gëmloo ñu ne fi mbooloo mi nekk fa la dëgg bi nekk. alors que dëgg bi mën na bañ a ànd ak mbooloo mi maintenant su fekkee ne ki ñu jiital nag nitu dëgg la dootu fa nekk pour neexal mbooloo mi maanaam pour am majorité day nekk ci dëggam donte kenn àndu ci ak moom. je ne sais pas si tu vois un peu. waaw c'est ce hmm. bi mu bindee son livre Zarathustra kenn faale ko. Hmm. qui est devenu une référence léegi kenn mënul wax ba jeexal te tudd Nietzsche. mais kenn faale wu ko woon à l'époque. Hmm. mu ne ma bouche ne pas faite pour ses oreilles changé wul waxam de. Hmm. su doon nitu tey xam na lay def. Hmm. wax naa lii kenn gëmu ko xaar ba changé ko. ma wax leneen. pour wax li mu lu nit ñi gëm su nit ñi tàccoo rek ba ne ok c'est bon maa ngi soog a wax lu baax mais nitu dëgg xoolul loolu. est ce que bu wéetee ci dëggam te yoonu dëgg en général sax dañ cay wéet. dañ cay wéet. dañ cay wéet ciy da koy léegi nag les acteurs politique nekkuñu ci dëgg. Hmm. majorité la ñuy wut. lan moo neex ñëpp li neex le grand nombre neex na ma kon naa def pour mu neex le grand nombre su ma bëggee def lii te ma xam ne mooy dëgg moo baax ci dëkk bi xam nga sama conseil lu ñu may wax. Hmm. non non non lii soo ko defee gaa yi dañuy mer te suñu meree après ils ne vont pas voter pour toi ils vont créer des lobbying dinañ jëm ci rajo yi dénoncer la dinañ jëm ci xalif bi dénoncer la dinañ jëf lii dinañ def lii et nga renoncer donte à ton âme et conscience xam nga ne loolu mooy dëgg. Hmm. mais tu parce que la majorité t'a imposé sa loi bés bu ñu amee nag ka nga xamante ne day jëf parce que xam na ne lii moo baax pour réew mi donte neexul waa réew mi c'est comme avec ton enfant mm. il arrive que nga xam ne lii moo baax ci moom te moom du ko xam dëgg la nga naan ko demal jàngi moom mu ne bëgg a foyi hmm. et cetera da nga naxanteex moom mais di nga xam intérêt bi quelqu'un qui dirige un pays aussi ak benn askan léeg-léeg dafa war def la nga xamante ne c'est pour les générations à venir mm-hmm. fàccaam c'est-à-dire on dit que le monde dans, dans le Sénégal où nous sommes on l'a hérité de nos ancêtres mmh. et on va léguer ça à nos petits-fils mm-hmm. qui ne sont pas encore nés léegi yow loi bi nga war a jël tey nga xamante ne loi boobu c'est au profit d'une génération qui n'est pas encore venue au monde mm. loi boobu kan moo koy votel ñooñu les hommes conscients mhm. ñi am la conscience de cette génération à mais ñu bëri dañ ci contre parce que gis gisuñu intérêt bi tout de suite mhm. nga ne leen non c'est pour les génération à venir dans deux siècles nga ne la yow ñu ngi en deux mille ngi ñuy wax dans deux siècles kon mbaa du ñun dañoo def liñ naan iñaane sa ndono ah oui oui dal nañu non pas seulement iñaane sa ndoom iñaane sa voisin iñaane sa dëkkandoo iñaane sa doom iñaane sa ndono iñaane maam parce que maintenant c'est un monde de du chacun pour soi ku nekk sa bopp ngay xool moom mooy proverbe bu bees bi gaa yi inventé ah, sama ma la gënal du bañ naa la mm. même da nga koy wax sa dooma ah, mm. léeg-léeg nga gis yaay bu ko wax doomam <laughs> eh bu ma damm man tam dama war dund mm. Hmm? alors que bu njëkk mag ñi dañ daan won seen njaboot ne que danga war a sacrifier wu pour sa njaboot ñoom bu ñu ah amee njaboot ñu xam ne bor la bu ñu war a fay tout à fait mais léegi soo demee ba dégg doom ji wax sax yaay ji parce que yaay ji màgget na sonn na ko jël en charge et tout attends mère bi mu ngi nii mais man tam je dois vivre ma vie je suis jeune mënu ma consacrer waa ma maman comme ça këram këram elle n'a qu'à mourir elle a vécu sa vie man tam damay dund bés bu la ñu gis ko des enfants qui sont là seen i waajur dem ba atteindre benn âge bi hmm? Hmm. ñu bañ leen jël en charge abandonné leen parce que ku nekk tu que tu dois vivre gis nañu yaay papa bu war toppatoo ay doomam tu dis ok xale yi dañu dix ans man aussi je dois vivre ma vie hmm. parce que l'égoïsme dafa dem ba tollu foofu on nous a appris le plaisir facile que vivre c'est jouir le maximum euh, vivre c'est toi toi seul ok alors que ki war a defar dëkk bi dafa war defaral ñi fi ne defaral ñi fi nekkul hmm. gere ñi fine gere gérer ñi wéy gérer ñi ñëw su fekkee ne nag yow miy gérer da ngay xool rek li neex waa jamono ah liy def buzz li tax ñëpp tàccu liy tax ñëpp kontaan hmm. eh, mon père me disait que tant que ñu ngi lay tàccu di la tàccu rek xamal ne nag waxagoo dëgg hmm. ma ne ko ah mu ne ma bés boo waxee dëgg ñu yuuxoo waaw ah, parce que en général dëgg neexul te ñëpp bëgg. oui ma ne ko mais mais papa looy wax loolu mu ne mais yonente bi mu waxee dëgg dañ ko sànni xeer ba damm ba dëgg la. ma yëngal sama bopp mu ne ma kocc ba mu waxee dëgg dañ ko dëgg gasal dëgg sërëx. Hmm. ñi fi wax dëgg ñëpp dañoo am problème. voilà et donc les foules aussi noonu la ñu mel souvent ils n'aiment pas la vérité. ils, ils aiment le folklore ils aiment le tappale yi fàccaan mbir yi yàqu na mhm. mbir yi yàqu yàqu bu xóotu xóotu xóot mhm. bu soree sori sori mais li ngay tënk daal mhm. mooy nit day niit su niitatul rek amul njëriñ mag ñi ñu fiy tudd yëpp dañoo nit bàyyi fi ceeñeeru seen leer ci jamono ji ko jëmo ji ko jëfandikoo waaw mais jamono ji nag léegi gëmatul loolu folklore lañ ko def alors li yàqu bëri na bëgg defar wala bëgg jéem a defar wala bokk ci ñiy defar moo tax euh, ngeen yëkkati euh, taxaw citoyen debout mm-hmm. te ngeen bëgg yëkkatiwaat moom ngeen mm-hmm. bëgg dekkalaat mm-hmm. yan yoon ngeen jàpp ne buñ ci awee loolu dina sotti jikko yi yàqu yi. <coughs> ñibbi mhm. woon mën a ñëwaat. waaw Dekkal Citoyenneté bokk na ci c'est essentiel même. Mhm. mais on n'est pas prétentieux mhm. waxuñu ne dañuy soppi lu yàqu et a moo tax ma ne waaw jéem merci beaucoup pour cette prudence là mais dañuy surtout essayer d'élire le bon président pour le Sénégal. ki ñuy fal moo am responsabilité Fatia. Mhm. d'ouvrir les chantiers de l'homme surtout préoccupation état la war ne nga xam ne da war tabax nit case des tout petits bi ñu tudd sànq mhm. bi ko Ablaye Wade tabaxee ci projet tabax nit boobu la nekkoon mais projet bi àggul à terme mhm. enseignement bi ñu xoolaat ko xool système bi jàppale les acteurs communautaires jàppale les mères et les pères de famille pour que ñu mën a jouer le rôle de père et de mère de famille. Mm. parce que mère de famille buy wër dépense fàccaam. Mm. talul doomam. déedéet. Hmm? de. père famille bu fayu location am. day nëbbatu borom këram deux heures du matin lay ñibbisi. Mm-hmm. cinq heures du matin mu génnaat kër gi. Mm. donc foog ñu xool la vie. le coût de la vie. mu yomb ci askan bi pour ñu mën a jublu ci loolu. ñu ñu teg l'homme au cœur du dispositif les infrastructures ont leur importance mais soo tabaxee ay infrastructure te tabaxoo nit yu koy jëfandikoo mhm. ñu yàq ko ah. su waree dund un siècle cinquante ans lay dund cinquante pour cent de l'investissement te loolu am ci réew mi tey loolu moo am ci réew mi mm. tey Ablaye Wade nag ba muy teg la priorité sur les infrastructures c'était un projet mm. daf ko expliquer ba mu leer à travers son projet wax ne il faut que le gap infrastructurel entre l'Afrique et l'Europe ñu combler ko c'est sa vision c'est une belle vision mais dañ ko war avec beneen vision mooy ne soo jubloo ci infrastructure yi ba fàtte nit ñi di nga yàq la la taxoon jug parce que infrastructure yi nit ñi nga koy defaral. dëgg la su infrastructure yi baaxee teg nit ñi baaxuñu naka lañ fay dëkkee. yenn saa yi sax ba lay pare ñu yàq ko. ah merci beaucoup mais moo moo ñu dal n'est-ce pas. Mm-hmm. ñuy tabax euh, te BRT pareegul ñu ñëw toj vitres yi. dëgg la def attentat contre le terre pour pour këpp ko. taal bibliothèque universitaire taal archives yi veut dire que mais on s'en de ce que vous êtes en train de construire et qui koy construire aussi il a échoué un projet qui a son importance c'est euh, la construction de l'homme sénégalais Senghor tegoon na ko au de son projet bi muy créer l'école des arts et tout gaanaan kii c'est un artiste c'est un fou mu il nous faut créer des images immortelles il faut que ñu am nos plasticiens am nos cinéastes am suñu Ster Sorano am suñu et cetera et tout bon les gens l'ont pris mm. mais c'est qui participent à la construction de l'homme bon xëy na moom am na aussi ay wet yu mu yu mu juumoon nous sommes mm. un petit pays mm-hmm. assez pauvre pour mettre tout le monde autour de l'essentiel dafay mm-hmm. metti mm-hmm. Donc, nous, on veut jouer notre partition en aidant les Sénégalais à choisir le meilleur candidat, en aidant les candidats dans leur projet. Nous bagnons le tout économique. Nous savons qu'il y a un grand pan d'investissement que nous devons faire sur l'homme sénégalais. Ah, parce que nous disons, comme, comme le dit, émergence, développement, mais jamais de valeur, de restauration des valeurs. Nous problème daal mel ni dara xewul dañuy toog rek ba xew-xew am yëf yi pëccëxoo jaxasoo ñu ne bon y a problème à ce niveau mais après pas de solution duñ ko boole ci suñuy priorité oui mais alors que soo soo amee ce projet la da ngay xool quelle la part de responsabilité de chefs religieux hmm. nga jox leen ko ñoom ñu ko c'est-à-dire tu verras leur importance te eh ne ah chef religieux kat am nañu ay daara Sëñ Tuubaa bind na ay téere sur la jeunesse lu ndaw ñi hmm. euh, nga dem Tivaouane am nañu ay daayira sëñ Babacar moo ko sampoon hmm. daayira yi c'était pour construire l'homme daayira yi c'est l'équivalent des tey des association de quartier yi amoon mais tu valorises tout ça oui hmm. c'est-à-dire fexe ba daayira yi rôle ba taxoon sëñ Babacar samp ko ñu joué boobu fexe ba daara yi rôle ba taxoon sëñ tubaa samp ko ñu joué rôle boobu nga ñëw nag ci artistes yi ensemble lyrique traditionnel chef dafa doon participer ci combat bi ñoom njëkk ma yëpp dañu doon participer ci combat état bi waa kaw gi bay leen njëriñ laa ngi su suuf si seet leen ci mm-hmm. demba waar ca waar wa mm-hmm. ba ko njëkk may di woy lu taxoon mu woy ko lu taxoon mu ko parce que état dafa bëggoon dugal loxoom ci agriculture bi mm. nit ñi commencé ko délaissé mais on a fait appel à Ndiaga Mbaye on a fait appel aux artistes gars yi wëy mais wëy bi dugg ci xol yi. Mhm. tàllal lamp yee ndeysaan festival mondial des arts nègres Sénégal la. Mm. et parce que un euh, combat pour le développement et porté pour par tout un pays. Mm. yi di comédiens yi suñuy théâtre dañuy xool projet vision état bi dañuy théâtre wéykat yi suñuy wéy ñuy wéy ci pour projet boo imaginez un état qui a qui a une vision hmm? une vision bon de de l'homme sénégalais d'en faire un citoyen modèle mais état boobu dina nangu fecc kaay leen soog fecc bu bees. ah ces danses vulgaires là qu'on nous hmm. tous les jours à la télévision. <laughs> ay suus. Hmm? <laughs> état boobu dina nangu n'importe quel cinéaste bind say film et cetera qui pousse les gens à la déperdition hein, et à l'immigration pour vendre l'argent ñu koy teg ci et cetera et tout non c'est pas que da ngay limiter la liberté hmm. des citoyens mais dañu porter un projet ba nga xamante ne ñun Sénégal ñoo ci d'accord hmm. projet boobu ñëpp dañ ci war liggéey xalif général bi def ci war liggéey hmm. euh, maître daara bi def ci war liggéey comédien bi def ci war liggéey artiste bi daf ci war liggéey ñëpp mais nag attends pour nga partager projet bi déjà ba ñëpp bokk ko ak yow ba ñëpp nangu ko c'est du travail mm-hmm. mais ce travail de partage là amatul kañ la gëj a am Sénégal le plan Sénégal émergent ñaata Sénégal ñoo ko xam. Hmm? Mm-hmm. bariwul de. ñaata Sénégal même intellectuel xamuñu lu nekk ci biir ci biir plan bi. dëgg la attends tu vulgarises d'abord tu partages avec les artistes. nga xamante ne soo ko partagé ak Wally Seck ba mu dégg ko ba mu comprendre ko suy créé wéy mais loolu da koy inspiré. wala. Mm-hmm. Ah soo ko partagé ak waa Daaray Kocc ba ñu comprendre ko mais Cheikh Tidiane Diop c'est le travail qu'il faisait à sa façon. Mm. avec sa troupe théâtrale. pièce bu mu bind am na objectif social derrière am na objectif économique derrière. Mm. wéykat bi suy wéy am na ay ay yu nekk ci biir. parce que woykat bi c'est un combattant aussi hein. Mm. il veut changer les choses. mais su waykat bi amul benn ambition day woy di détruire rek di daaneel lu réew mi tabax lu xalif général bi tabax woykat bi daaneel ko. Hmm. fecckat bi daaneel ko. Hmm? Hmm. théâtre kat bi daaneel ko. dans quelle république nous sommes. moo tax soo waxee situation bi lan moo ko jur li ko jur bëri na. Fatia. les musiques que nous écoutons depuis tant d'années nga foog ni lu am impact ci suñu jikko. Hmm? musique musique dafa am doole. ah oui. Ouais. cest inconsciemment musique bi da lay transformer. bien sûr les téléfilms que nous regardons à la télé tu penses que c'est des téléfilms yi jàll ni rek comme ça. Hmm. Hein? tous ces téléfilms qui nous viennent des des là et tout mais c'est des porteurs de message bien sûr. de messages sublimés que tu ne sens pas mais daf dafay transformer société bi. Hmm. tu prends un téléfilm teg ko ci télé bi pendant cinq générations mais am na ay téléfilms yuy yuy durer euh, dix ans. Mm-hmm. tu insémines comme ça l'idéologie petit à petit dans le cœur des jeunes générations daf leen transformer. Mm-hmm. les effets de la mondialisation. ah oui tu penses que Vaidé c'est passé comme ça Vaidé ñu ko bind dañoo amoon un projet. Mm -hmm. les américains su ñu génn benn film c'est pour euh, vendre l'image de l'Amérique. Mm -hmm. et leur conception du monde ñun aussi nañu créer suñu image ak suñu conception du monde bon waxuñu ne nga tere ne bu wen dugg mais yow tam da ngay teg ba nga xamante ne da ngay jaay sa bopp. li yàqu bëri bi nag euh, yàlla na yàlla dimbali. Hmm. alors yéen ngeen accès ko donc ci euh, choisir un président d' accord naa parce que sànq nee naa la le poisson pourrit par la tête donc. Mhm. bu bopp bi baaxee xëy na li si des mun na baax donte liggéey bi à la base aussi euh, am na solo su ma ko jëlee si angle boobu kon 2024 day nekk un tournant décisif pour la société sénégalaise. ah oui ah oui. ok tournant qui a son importance. parce que Sénégal dafa jëm si bees et signaux yi dafa feeña ah, ak jàmm ah. euh, la la perte de valeurs dafa àgg au au hmm. c'est pour la première fois dans l'espace politique sénégalais université yàgg nañu xeex politique mais musuñu taal bibliothèque hmm. musuñu taal faculté musuñu taal archive c'est du une première au Sénégal hmm. xeex politique cocktail molotov man depuis soixante-huit laa ko gëj dégg les utiliser boobu c'était un mouvement un peu international mondial. oui mais cocktail molotov si biir carte de transport en maa ngi koy soog a dégg. Hmm. bon yenn usine buy defar ndox bon le projet d'attaquer les les grands marchés tàlle bi tout c'est une première. donc si de vue jikko ak détérioration euh, climat bi yàqu na yàqu bu rëy. Hmm. bon ba pare ñu annoncé que Sénégal am na gaz am na pétrole. Hmm. gaz day tàkk pétrole day tàkk. te gis nañu dëkk yu ko am yëpp am na yu fa xew. Mm-hmm. parce que dafay ootal mbon. mooy hmm? nekk ci àdduna bi yëpp ci dëkk yi am pétrole les états bandits les sociétés brigands et cetera ñëpp dañuy mm-hmm. hmm? mm-hmm. ci suuf ku nekk am sa candidat ku nekk euh, que nit ñi matatuñu. piliers yi mm. euh, dëgërul xam nga dëkk dina am piliers yu dëgër yi nga xamante ne euh, sélection naturelle bi am mm. pour accéder au pouvoir mooy éliminer toutes les brebis galeuses mm-hmm. ñun système d'élimination boobu amuñu benn système d'élimination rek la ñu teg et c'est basé sur l'argent ce qui fait que donc ku am xaalis rek mën nga nekk candidat moo tax borom xaalis yëpp ñëw ne candidat la ñu seetlu woo ko mm-hmm. ñi déclaré candidat yëpp c'est des millionnaires rek parce qu'ils disent ku am parce que ci ay caution lañ ko teg peut-être sax léegi am nañu parrainage mais lépp ci ay lijjanti la lépp xaalis non lépp ci xaalis lay mujjeewaat parce que ça s'achète justement voilà doon ñëw koy jënd donc bi ñuy wax sànq wax naa la ne Ablaye Bathily amuloon million euh, Dansokho amuloon ay million hmm. acteurs politiques yi dañu doon juger du point de vue de leur envergure intellectuelle hmm. et de leurs compétences ñu compétir parce que ku amoon million te amoo compétence boobu sañoo woon dugg ci arène bi à l'époque mm. parce que toogaax Ablaye Bathily nag c'est pas n'importe qui moo koy def de. Mm-hmm. voilà. waay toogaax Ablaye Wade c'est pas n'importe qui. Mm-hmm. léegi ngay gis ci de presse parti tu vois n'importe qui ci tribune bi bon on dit pas n'importe qui pour sous-estimer des hommes. Mm-hmm. mais c'est par rapport aux compétences. mu ngi mel rek ñu ne les les du Sénégal <laughs> si si mais xaar yow looy def fii. fii mm-hmm. amoo fi place. parce que c'est les chirurgiens qui se rencontrent. quand les hommes d'État se rencontrent dafa am ñu fa am place ak ñu fa amul place. Mm-hmm. xoolal tey les personnes qui sont devenues maires dans nos arrondissements les populations sont en de regretter. Mm-hmm. parce que ba ñuy fal xamuñu woon ne sax waa ji xamul luy maire mais imagine nag Sénégal tey ñu tomb ci guuta boobu n'importe qui peut ramasser le pouvoir présidentiel suñu deful nank suñu tolloo ci moment bu critique bu mel noonu nag ñëpp dañu wax taxaw. Hmm. parce que Allemagne loolu fa amoon bi bi leer di for di for pouvoir bi par les urnes. Hmm. après Allemagne yëpp a jaaxle quelle bêtise moo ñu dal ba ñu fal kii. Hmm. ci la jaar ba jël pouvoir bi. et donc moment bu critique bu mel noonu Sénégal nekk ci détérioration des valeurs bu rëy boobu. nekk ci tournant historique ba nga xamante ne on va commencer l'exploitation du pétrole et du gaz àddina bi yëpp teg bët tous les chasseurs de prébendes teg Sénégal bët ñëpp bëgg fi dugg ku nekk bëgg am sa part du bac parce que le Sénégal est devenu un gâteau international ku nekk war a ñëw ax jumtuwaayam il sont même capables de venir choisir des candidats. Mm. ëllëg ñu oola Abdou Khadre état kërën kërën nga ne non man bon mënu ma nekk candidat ñu ne lan mooy sa problème nga ne xaalis ñu a xaalis. Mm-hmm, mooy lobby. mais contrat bi mooy. tu boo mm-hmm. faloo ñooy doxal. foofu la Sénégal toll. Hmm. su dëkk nag tolloo fu mel noonu je dis que dañu war xool ki ñuy fal kan la. Hmm. ci compétence hmm. ci cursus jaar-jaar. parce que moment bu mel nii mënuñu fal un amateur mënuñu fal Abdou Khader pour nga ñëw jàng comment on gère le pouvoir honnêtement il est préférable pour le Sénégal ñu fal nit ku am expérience. ñu xool jikko bi mm-hmm. jikko bi tu ne peux pas prendre n'importe qui on dit n'importe qui doit être président n'importe qui ne peut pas être président mm-hmm. même si n'importe qui pouvait être n'importe qui ne doit pas parce que am na un minimum quand même bu ñu war a xool ci mm-hmm. say fréquentation ci fan ngay dugg ci fan ngay dem si on vient dire ñu ne waa ji kat bon tous les samedis il est au Yang Yang Bar attends Fathiam soyons sérieux mm. bon tu as les compétences jàng jàng bi am nga lii mais tous les samedis tu es au Yang Yang Bar mm. on ne pas te faire confiance suñu gisee ne waa ji kat bon euh, koñ bu nee am na fa et cetera patati patata wala il fréquente les fumeurs de chanvre indien patati patata et cetera yooyu yëpp c'est des c'est pour un peu caricaturer oui. pour voir que choix bi nekk choix yomb. Mhm. mais mënoo choisir lu dul si ñi nekk candidat foofu aussi contrainte la. Mhm. parce que euh, Fatia mën na gis ne kat Samba Ndiaye nekk Bawol bon il ferait un bon président. Mhm. mais Samba Ndiaye n'est pas visible kenn xamu ko nekkul candidat mënoo ko fal. mais am na juróom ñi nga xamante ne nekk nañu candidat au moins si juróom yooyu ñu xool ku ci tane. wala. waaw. mënoon si juróom yooyu. allo. waaw ma ngi lay ma ne mënoon nañu koo defee noonu. voilà ñu xool ki ci tane. Mm. ñun en fait c'est ça notre rôle on pas dire kan moo baax. Mm. qui est l'homme idéal on ne peut pas avoir l'idéal parce que si ñi nga xamante ne nee nañu ne ñoom ñooy nekk candidat teg ci ñooñu ngay tànn mais si ñooñu ñu xool ñan ñooy les euh, ñi bëgg a for pouvoir bi pour fooye ko ak ñan ñoo am un peu de sérieux mm. pour diminuer les risques yi nga xamante ne Sénégal fa la jëm mais population yi taxaw tam pour mën a def un contrôle du pouvoir parce que ki nga jàppale fal ko moom nga gën a mën a hmm. parce que les gens doivent être de l'intérieur contrôle extérieur et intérieur hmm. parce que nag il y va de notre avenir et de l'avenir de nos enfants hmm. depuis depuis très longtemps nag nit ñi dañuy bàyyi seen loxo bàyyi lépp ak parti politique yi ah. bon ñoom ñooy gagné mairie yi doxalee ko nu leen neexee ah ëllëg ñoom ñooy gagné réew mi aussi doxalee ko nu leen neexee di ko paasante mu nekk ré nekk réew parti hmm. réew parti bon man maay maire bi boo ñoo di attends kële nee ne dafa am malade malade bi dafa am urgence dafa dem hôpital ñu faj ko bon ma jël trois demandes bon li may xool mooy benn laa mën a jël ah, kan moo ci sama militant c'est comme ça qu'on raisonne hmm. suñu séddale ceebu weeru koor yeeg suukar yi militants yi ñu ñuy jox hmm. et cetera et c'est de la même façon que ça se passe aussi au sein de l'État parce que les militants ñoo am accès au ministère ñooy am accès au programme de développement. ñoom la ñuy financer soo demee xool financement yi génn yëpp et tout yi ci ëpp ci militants yi la dem. de ce fait dañuy créer oh, mais c'est ça c'est ça léegi ñi nekk au pouvoir créer ko mais ñi nekk dans l'opposition aussi créer ko. Ah. parce que soo farul ak ñoom ñu saaga la amuñu xaalis ñu la jox mais mën nañ la saaga. rek est-ce que tu vois hmm. remettre en cause sa ta foi religieuse. Hmm. traité le d'idolâtre et cetera et cetera. Et tu dis, mais attends, ces gens-là, ils sont Parce que su fekkee ne sectarisme boobu moo am au sein du pouvoir depuis l'indépendance ba léegi le même sectarisme moo am au niveau des mairies contrôlées aussi bien par les partis du pouvoir central que d'autres partis de l'opposition même sectarisme boobu moo am dans les débats publics soo ñëwee ci débat bi wala nga joxe sa opinion su fekkee ne d'accord ñu ci opinion bi su fekkee ne xaalis la am dañ lay xañ xaalis bi soo defee demande tu n'obtiens rien su dee mairie la yor soo laaj ji eh, eh, bourse pour sa doom ñu xañ la ko parce que waa ji moo saaga woon maire bi keroog loolu ñuy wax. Hmm? su dee amoo mairie amoo état ñu ne militants yi saaga leen ko ñu lapidé la dans Facebook traité la de tous les noms d'oiseaux diabolisé la alors le Sénégal se trouve écarté li loolu yëpp nag cosaan bi mooy fa nga commencé sa émission jikko yi. Hmm. jikko yi. c'est yàqu. Hmm. ba adversaire bi noonu la ku bokkul wax man gis-gis noonu la. Hmm. mais nous sommes devenus très très très très petits comme disait Victor Hugo ndeysaan. Hmm. lu ñuy xool les citoyens de son pays mu ne ils sont ils sont petits ils bon ce petit homme là cet homme minuscule de rien du tout vulgaire. qui ne respecte aucune institution, aucun homme, qui ne croit qu'à son intérêt personnel, etc. et tout. Cet homme-là, moom mi ñu gis partout au Sénégal. si Abdou Khader sax mii di wax ni nii nii. <laughs> bon je le connais non je le connais bien cet homme parce que je le vois dans mon cœur et dans mon esprit. Hmm. mu may def ay suggestion léeg-léeg ma bëgg réagir mu ne ma attends mu conseil yi may jox baaxul dara baaxul ci. Hmm. waaw léeg-léeg sax moom léegi mu commencé wax saagal. te man daaw ma saaga <laughs> mais de, il m'arrive ma am des envies d'insulter ouais. tout le monde nag waaw il m'arrive ma am des envies d'insulter parce que c'est le climat ouais. qui est électrique qui est, comme ça waaw des fois me sentir dans mon cœur des méchancetés que je que je connaissais pas hmm. ignorer. Ah, parce que environnement bi tamit dafay impacter ci nit mais bien sûr. li ñuy dund après dañ koy sentir. j'éprouve des sentiments que je n'ai jamais eu. parce que le climat est malsain hmm. le climat est malsain. kon da na. parce parce que nit ki aussi da lay woon benn xeet ba nga xamante ne day toll fenn aussi tu as envie de réagir ku la tàllal loxo ci mbedd bi nga ne nii def la benn sourire mais da nga koy tàllal loxo sourire hmm. mais ku la xool méchamment avec bo va au diable aussi. Hmm. tu as tendance à lui jeter le même regard. xëy et nous nous retrouvons dans la, dans Numbelan voilà <laughs> dañu dañu ñibbi Numbelan mm. Senghor et Abdoulaye Sadji nous prévenu hein mm-hmm. avec la vie de Numbelan lëg la lièvre foofu lañ toll malheureusement euh, ah li ngeen yëkkati pour mu nekk solution yàlla na ko doon muy taxaw citoyen debout bugg a tabaxaat lu bëree bari yàlla na mm-hmm. doon euh, solution bu ko doonu li début de solution mais on souhaite que mu nekk quand même luy jur njariñ ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi yëngu pour que jikko yi defaraat parce que boo posé le diagnostic rek da ngay tiit da ngay tiit ci sa mhm. bopp da ngay tiit surtout ci génération yiy ñëw parce que xëy na ñu fi nekk tey sax am na luñ dese tuuti ci liñ leen lege woon mhm. euh, mais mu ngi réer ba mu amuñu sax luñ transmettre ñi ñu yor donc ñii ak ñiy ñëw euh, war nañ leen xalaat ba tax ku nekk jéemee boor bu ne liñ naan taal bu taw tàkk boor bu ne lañ koy uppee ku ne na mhm. jéem fa mu nekk xëy na njariñ dina feeñ ñu ngi lay gërëm bu baax waxtu wi dab nañu Abdou Khadre mhm. Gaye amoon nañu lool mbégte dalal la ci démb ak tey yow moom sunu émission ñaare waxtaan yu mel nii lay doon mais euh, njariñ laa ciy yëg yàlla na doon loolu pour ñi ñu doon déglu ñu lay gërëm gërëm technicien yi jàppoon ci liggéey bi Diawo Diallo ak Léon Paul Mendy euh, Abdou Khadre jërëjëf jërëjëf Fatia jërëjëf dig daje dimanche beneen incha allah waxtaanee leneen ak keneen euh, yendu leen ak jàmm